parce que moom moo waroon def troisième mandat euh, il s'est il s'est retiré te avant muy retiré beaucoup de choses se sont passées d'abord son son son son ses appels téléphoniques avec Barack Obama bu ko doon laaj est-ce que derrière bokk wala du bokk Macky a gardé la le, le secret euh, ama Macky il s'est engueulé avec Macron mm-hmm. juste après les événements du mois de juin bi mu demee Macron di ko laaj est-ce que da bokk il paraît que da nga bëgg bokk Macky ne ko mais yow xaaral moo def déclaration mu quitté Macron mu mu quitté quitté Macron dem gisee Sarkozy ils ils ont discuté parce que la presse française comme tu as vu ñoom ñëpp les diplomates les services de renseignement dañu waxoon ni Sénégal dafay ñëw tàkk te eux eux ils ne voulaient pas de ça et ils ne voulaient pas de Macky moo tax ñi naan Macky dafa ragal France yooyu xamuñu Macky il a quitté le 22 mai Macky Sall a reçu ici Olof Olof Scholz le le chancelier allemand. qui était venu parler de pétrole et de gaz mais au fond il ne voulait pas que Macky dem dem dem Sotchi mu wax ak moom mettre la pression Macky di dafay dem Macky a quitté ici pour pour dem Sotchi le trois juin mais Macky bi muy bi muy génn l'espace de l'Union européenne pour traverser Turquie dugg biir Russie les avions de commandement bi les sociétés yi nga xam ne ñoo koy assurer dañ ko ni boo génnee l'espace européen duñu la assurer ti ça tu tu sors de l' espace de l' union européenne bu dugg Russie ñun foofu la suñu contrat d' assurance yam mak ne leen man sama yoon nekk ci mu foncé te loolu la mënoon na ko dara wàcc Russie après le trois juin 4 jours après ci la am fii manifestation casserole yi le 7 juin un opposant a reçu un virement de 849 000 dollars. quel opposant du ma ko wax 849 000 dollars pour organiser ay manifestations. parce que les l'Union européenne les Américains ñoom ñëpp ils étaient contre Macky Sall parce que le fait que mu dem gis Poutine. parce que chancellerie occidentale yi ñoom ñoo. joxe nga gars yi xam nga gars yi bu ñu lay xeex président ak gouvernement yi ci dugg ay hommes d'affaires la ñuy wax ak ay sociétés ñoo ñëw gérer ñëw créer ay troubles. c'est trop flagrant de faire impliquer des ministres ay day jël benn société boo xam te ba la parce que bu fii beaucoup de écoute sociétés yu bëri ñu koy jiite fii c'est des agents de renseignement ñu ci bëri. ou bien ils avec des agents donc 849 dollars donc 1000 euh, pour pour pour pour yëngal dëkk parce que les Européens ils étaient très remontés contre le fait que Macky dem gisi Poutine. Mm. il est allé il est il est xoolal mu dem fa demaat fa une deuxième fois muy intervention. ci affaire et la Macky Sall doon dans le dernier entretien qu'il a accordé à France 24 il a même parlé de connexion en France. ah mais non j'ai des des audios d'une haute autorité de l'État bu woo la le patron France 24 di xuloog moom direct parce que gars yi il voulait créer une situation déstabiliser dëkk bi à travers la presse di tegale Sonko di ko génne France 24 France 24 Fra euh, te mu le monde parce que il voulait le en fait promouvoir ko parce que à un moment donné la la France a lâché Macky parce que Macky dafa résister pour ànd ak Sonko ici ànd ak succès Masra au Tchad sans ànd ak euh, euh, euh, di jéem a seet ñu ñu ñu dugalee ñu ñu dugalee Guillaume Soro au cas où Ouattara bëgg def comme comme Macky Macky a résisté fekk moom jëloon na décision bu yàgg pour pour ni pour ni du pour ni du bokk Macky boo xoolee ces discours yi mu doon def avant imaginez ce qui se passe aujourd'hui bu Macky ne woon depuis 2019 du ma bokk man mooy des APR